mel soxal na ko bu baax a baax. waaw soxna Diarra communiqué bi day euh, bu ñu ko jàngee. Mhm. defe naa ñaari point yooyu ñoo ci gën a fés muy éducation. Mhm. ak sport. donte premier ministre bi laal na yeneen point yoo xamante ne. aussi yu am solo la. ah éducation bi nag li may renvoyer rek mooy euh, daf ñuy delloo ci baatu projet. waaw parce que sénégalais yi ñuy dégg le projet le projet le projet. Mhm. mais projet bi. cëslaay bi cëslaay bi maanaam soubassement bi mooy une transformation systémique loolu dafa may objectif et pour man objectif yi bokk na ci am une autosuffisance alimentaire am souveraineté sécurité am également bon gouvernance mm-hmm. man ñetti baat yooyu laa ci gën a jàpp ci les principaux objectifs yi nga xamante ne le projet de transformation systémique bi nga xamante ne mise en œuvre bi déjà commencé na foofu la may renvoyer éducation rek li ñu ci wax yaatu na mais euh, notes yi ma ci jot a jël daal nekk na lu am solo ba nga xamante ne defe naa ne bu ñu ko mettre en œuvre comme ni ko le président de la République digle dana am solo bi ci jëkk mooy langue nationale yi waaw suñu làkku réew yi nga xamante ne wax dëgg yàlla Euh, jot na nag ñu jàngale ko nag dugal ko ci école yi et mu nekk une réalité aussi parce que gouvernement yi fi jàll yépp ñu ko doon théoriser théoriser théoriser mais dafa jot ñu dem ci mise en pratique bi appliquer ko et defe naa ne bu ñu ko defee dinañu xam ne ñun ñàkkuñu ay borom xam-xam mm-hmm. parce que fii ñu ci bari seen blocage c'est le français mais tey am na ci matières yu bari yoo xam ne bu ñu ko jàngale woon ci làkk làkk yi ñoo ñu dégg mm-hmm. dinañ gis ay borom xam-xam dëgg. dana gën a yomb. limite gën a yomb envers. ah limite de defe naa noonu lañ koy xeex. voilà. da wax yoo xam ne daal. comme yéen ay jàngalekat ngeen yéen a yéen a ma gën a xam yooyu. Mm-hmm. kon bàyyi na. kon langue nationale yi dañ ci taxaw dooleel ko dugal ko ci bari bi ñuy sàkkoo xam-xam. beneen bi mooy anglais président wax na dëgg parce que anglais léegi amut fooy wàcc ci àdduna bi. làkk ko te doo gis ku la topp. am na fooy wax fooy wàcc làkk fa wolof ragal naa da nga sonn torop français bi sax am na ci barab yoo xamante ne. non français bi sax. Mhm. sorewut. donc anglais bi. fii la fii kii kii kii kii Dieye bi Cheikh Bamba Dieye. Ah, ah, fi mu fi ñu ko dénk fa la français ci tund yi waaw. Mhm. yow Babou Diouf jàpp la. <laughs> dégg anglais jaara président dafa wax ne nañ ko dugal ci daara yi dès l'élémentaire te loolu dafa am solo dafa am solo parce que anglais tey mooy làkk bi nga xamante ne fépp lañ koy waxee ci monde bi et leneen la ci gën a garaaw mooy dafa am foo xam ne fa la monde bi toll ci wàllu intelligence artificielle wàllu science wàllu mm-hmm. technologie booy xool xarañte fi ci génn yépp daanaka même matériel bi ñuy utiliser sax ci anglais lañ koy def mm-hmm. kon bu ñu ko teelee jàng teel koo mokkal dina dina permettre ñu am ubbeeku am ouverture boo xamante ne dafay baax parce que nag làkk richesse la boo xamante ne non seulement daf lay tax nga développé wu. mais dana faciliter lu baree baree baree baree bari. tey am na ci ñoo xam ne ñàkk dégg anglais dong moo tax mënuñoo avancer. wallaahi. te yafa naa ne bu ñu ko gënee dooleel teel koo dugal ci ci ci ci ci ci daara yu suufee yi dana teel a teel a teel a teel a jur njariñ. Mhm. ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy jàng leneen li aussi mooy les daara. waaw daara yi aussi ci lañ bokk xam nga fii njuumte bi ñuy def souvent mooy dañu jàppee intellectuel ki nga xamante ne moom moo dégg tubaab. Mhm. wala ki dem ci école française yi. Mhm. mais ñu nekk ci école daara yi dañuy am BFM en arabe. Mhm. am bac en arabe. mais ñooñu aussi faaw ñu gën leen dooleel ba nga xamante ne ñoom it seen intégration ci système bu mu ci mënti doon muy éducation muy leneen aussi mu nekk loo xamante ne dafay dafay dafay gën a am solo. bu ñu bu ñu combiner ñett yooyu daal defe naa ne. dana gën a am solo leneen li nag mooy yi ñu fi war a jëlee ay abri provisoire rek yooyu moom damaa jàpp ne dafa a jeex ci réew mi nag. wax mm-hmm. yàlla théorisé nañ ko fii abri provisoire te loolu fi mu toll nii euh, nekk nañ ci benn euh, tangente boo xamante ne yooyu waratut xa waratut a am ci réew mi war nañ ko dépasser. Mm-hmm. loolu mooy côté. éducation bi ci li ma ci jot a même ñu doon waxtaanee fii sax defe naa ni mhm. euh, président am na ci écho ndax mi nga xam ne ni daal ñu gën a jooyante nekk ñu élèves yi ci biir école ci biir école yi du doon déglu soos waaw waaw waaw mais xam nga xam nga ministère de l' éducation dafa am lu ñuy wax paquet paquet mhm. loolu defe naa sugum yi moo ma ko gën a xam sax lépp lu aju ci wàllu éthique c'est vrai programme boobu lañ koy foofu lañ koy foofu lañ koy doxalee mhm. léegi nag dafa sàkk ñu ñu ñu ñu ñu évaluer ko wax na dëgg parce que nag li ñuy seetlu ci sunu sunu sunu école yi nag wax dëgg yàlla ah jéggi na dayo kon dañuy ñaan yàlla rek ñu dem ci euh, ak jàmm ba nga xamante ne daal mesures yi mu ci yi mu ci digle wax dëgg yàlla département ministériel yi mu concerné aussi ñu mën ci taxaw euh, am na yeneen point yoo xam ne mi ngi ci communiqué bi du ñu mën a wax lépp. Mm-hmm. mais li ma ci jot a jàpp daal loolu la. Euh, beneen bi mooy wàllu tàggat yaram waaw tàggat yaram bi moom dama tiit bi le ministre El Hadji Ahmed Aïdara porte-parole du gouvernement ne <laughs> am na charte des sports boo xamante ne depuis quarant ans mi ngi fi kenn laalu ko. Hmm. waaw yaa xayti sportu 40 ans ak sportu 2024 moom ndax ñoo niroo. Ah, dañ ko initialiser. ah dañ war a yeesal. Hmm. dañ ko war a yeesal bu baax a baax a baax c'est-à-dire que réew aussi buy buy dox jamono buy dox. faaw réew ñuy dox hmm. faaw texte yi di dox aussi di gën a méngóog méngóog jamono. mais Sénégal ngay gis ay ay loi yoo xamante ne sa waay depuis 60 ñu ngi kon di ko appliquer. donc yooyu aussi nañ ko xoolaat et sport bi nag man dama ci dama ci am discipline boo xam ne dama yàgg a ne dañ ko dañ ko dañ ko ñàkk a dooleel mooy Scrabble te Scrabble bokk na ci disipline yi gën a indi ay trophée Sénégal mais malheureusement doo ko dégg fenn mm-hmm. président fédération Scrabble man sama goro la waxuma pour défendre mais gis naa ba tàyyi muy dem compétition jëndal boppam bii ca fédération la comme fédération sport euh, football yeneen fédération yi. Mhm. donc discipline yooyu aussi nañ leen gestu euh, jëm ko xam nañ ne mënul mënul toll fi football toll parce que football moom ni mu mel yàllaa ni ko yàllaa ni ko bindee mais am na ci seen yeneen discipline yoo xam ne war nañ nag taxaw ci dooleel leen vraiment. parce que fédération sénégalaise de Scrabble ngi def liggéey bu ama ama am solo boo xamante ne. Mhm. malheureusement c'est pas lu ñu leen te dama jàpp nag ñoom it ci sport bi bokk. je pense que bu ñuy réviser la charte du sport aussi dinañu fexe ba équilibrer li nga xamante ne moom moo di euh, doole yi yi fédération yi war a am pour que suñu réew nekk euh, réewu sport donc de façon résumée daal loolu laa ci jot a jàpp certainement ci biir waxtaan yi aussi dinañu évoquer yeneen yeneen point yi incha allah euh, euh, euh, comme ni ma ko waxee woon sànq Socé mm-hmm. mu mel ni daal lu ñu tukkee ci conseil de ministres bi ni ki dem lañ fa jot a waxtaanee suñu sukkandikoo ci honorable mi nga xamante ni faram fàcce na ko léegi buñ ci taataanee daal bokk na ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak li nga xamante ni mooy lu jëm ci wàllum ñàng meeg ñàngale mi mm-hmm. mu mel ni daal président waaye itam indi ay saafara ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ni mi ngi ci ñaari secteur yooyu. Euh, conseil des ministres euh, bu démb bi jaar li mu ci gis mooy dafa am pàcc bu yaatoo yaatu ba nga xamante ne euh, président jagleel na ko li nga xamante ne moo di mm-hmm. éducation bi et c'est très que mm-hmm. comme ni ko doon waxee démb éducation dafa nekk mbir moo xamante ne lu am solo la ci li nga xamante ne moo di dëkk. Mm-hmm. éducation santé justice yaakaar naa bu baaxee rek réew mi dafay daal di dox. li ñu doon waxtaanee démb mooy décision bi nga xamante ne inspection bu luga jël na ko daal di dakkal li nga xamante xamante ne moo di euh, fête dañ doon def ca école ñu gis ca élèves ya di ci def yenn nii man ba ma déggee honorable lim ko ci conseil des ministres dama kontaan. Mm-hmm. parce ñu ko doon waxtaanee démb loolu waruñ ko yemale Louga kese dañ ko war a tas ci Sénégal gi yëpp. parce bu fekkente ne da nga ne école lieu boo xamante ne dañ fay tàggatee nit pour ñu am xam-xam lieu boo xamante ne ña fay nekk suba ñoo yor réew mi. Mm-hmm. te yaakaar naa ne suba bëgguñu yor ay ministres yoo xamante ne dañ mu xeet yooyu dañ ko war di éviter éduc li nga xamante ne moo di école ak éducation dafa nekk mbir mu ama am solo mm. donc su ma gisee ki nga xamante ne moo di son excellence wax ko ci conseil des ministres sama xel dafay daal di dal mm-hmm. bu loolu weesoo buñ ne euh, éducation wala buñ ne li nga xamante ne moo di wàllum jàng meeg jàngale mi nekkul euh, ñi nekk ci école bi donc non ñi nekk itam ñoo nekk ci daara ji ci la ñu bokk. parce que yaakaar naa jàng nekkul euh, école dong mais ñi nga xam te itam dañu nekk ci daara bi ci lañ bokk parce que parfois da nga. <laughs> demal ñu def bàyyi la li ngeen di def parce que parfois da ngay gis ñi nga xamante ne ay bac en arabe la ñu am wala BFM en arabe. donc ñooñu bu bu gisee seen inclusion. Mm-hmm. dañuy gën a am courage daal di jàng ci li nga xamante ne moo di moo di mbir moom. Mm-hmm. parce que jàng ku nekk ak la nga xamante ne yow fa nga gis sa bopp pour jàng. Mm-hmm. c'est pas une que nit. école nga war a jàng wala français nga war a jàng à 100 pour cent non c'est pas une obligation euh, bu loolu weesoo li nga xamante ne moo di manque d'infrastructure yu ñu gis ci école yi ab ab abri provisoire yi nga xamante na ñoo xam ne par exemple bu ñuy dem jàngale ji wala bu ñuy nekkee seen classe yi di seen wala classe yi di seen ainsi de suite wala ñi dañuy dox di kilomètres et des pour dem jàngi parce que village ba ñu dëkk amul école mm. yaakaar naa ne yooyu war nañ ko joyante bu baax de telle sorte que ñi nga xamante ne ñoo di élèves yi ñu nekk dans de très bonnes conditions pour jàng ndax mm-hmm. yaakaar naa soose boo nekkul dans de très amaan na sa njàng du demee noonu mm-hmm. leneen li nga xam ne wax na ko muy lu am solo muy anglais l'autre jour ñu ngi koy waxtaanee nee naa la anglais nekk na la c'est la deuxième langue la plus parlée dans le monde nekk na langue boo xamante ne c'est international nekk na langue boo xam ne amul fooy munti dem ci àdduna bi làkk anglais te duñ la tontu donc bu fekkante ne da nga bëgg say doomu réew am bu fekkante ne da nga bëgg say doomu réew dem partout dans le monde di fa yóbbu seen xam-xam li nga xamante ne langue ba nga xamante ne moom la war a soxla war nga koo favoriser je pense que loolu euh, mbir moo xamante ne waroon nañ koo def bu yàgg yàgg parce que ñun ñi nga xamante ne par exemple dañu jël français au détriment de l'anglais pour man loolu amul benn njëriñ damay wax naan français fii rek la yem Sénégal wala Afrique. Mhm. boo dépassé fii dootoo gis dootoo ko gis donc bu fekkente ne moom jël na initiative li nga xamante ne moo di anglais bi ñu teel ko instauré ci li nga xamante ne euh, moo di école bi pour suñu euh, raq yi nga xamante ne ñoo nekk ci école yooyu ñu teel koo jàng de la sorte que balaa ñuy dem sax euh, li nga xamante ne moo di terminal dinañ làkk anglais comme ni ñuy làkkee olof. Mhm. langue national bi également ñu ko doon. est-ce que nekkul euh, son excellence daf ñu doon seetaan keroog nag wax dëgg yàlla parce que daanaka liñ fi doon waxtaanee yëpp moom la ñun ñoo lal dilwa dilwa yëpp ñoo lal jox son excellence <laughs> nekkati parce que liñ doon waxtaanee yëpp keroog dafa mel ni loolu lañ indi ci conseil des ministres honorable lal dilwa kon <laughs> moo lal dilwa <laughs> parce que langue nationale bi nga xamante ne dañ koy doon wax. parce nit boo koy jàng boo koy jàngal ci li nga xamante moom la nàmp boo ko jàngalee ci lay gën a gaaw. Mm-hmm. par exemple man boo may jàngal li nga xamante ne de mathématique mm-hmm. mu nekk te nekk te mathématique dafa nekk bi moo xam ne lu am solo la parce que science ak technologie moo yor li nga xamante ne moo di réew mi mm-hmm. donc mbir yooyu nañ ko gën a joyantiwaat bu baax a baax a baax am na beneen wàll mi nga xam te wax na ko ci école privée yi jaara am na du wax école privée mais am na ci école privée yoo xamante ne ñoo yàq jàng bi ak jàngale bi. Mm-hmm. par exemple da gis koo xamante ne dafa nekkoon école publique peut-être du daan am ay moyens yu baax mu ne la damay dem fay ji su ma fayee sama xaalis moyen bu ma dinañ ma jox moyen parce que damaa fay damay paase. parce que da naan damay fay sama xaalis. amee ah, bien sûr da naan damay fay sama xaalis te loolu yaa ngi yokk li nga xamante dem nga bàyyi ko mu paase te amul niveau wala amul moyen mi ngi dem ak lacune boo xamante mën na ko topp donc mbir yooyu yaakaar naa bu fekkante ne njiitu réew mi pare na pour jooyanti ko dafay nekk mbir yoo xamante dafay dëggu képp koo xamante la nga la mu wax ci conseil des ministres li mu wax ci école privée respecté woo ko ay daan tegu ci sa kaw de telle sorte que bu subaa doo ko def wala sa morom du ko def. conseil des ministres bi président euh, daal dina leen ni euh, amal ci yenn pàcc bam solo jëm ci wàllum njàng mi euh, gis nañ li nga xamante ni yëpp àdduna ko ci donc ban jàngat ngay def ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram bi ak njàng mi nga xamante ni daal jàpp na ni jot nañu jooyanti ko. nee naa la njàng beeg njàngale bàyyi na ah d'accord léegi journaliste nga honorable nee na bàyyi na. <laughs> le chroniqueur na kii man leen man bàyyi naa. <laughs> d'accord <laughs> ñu ñu ñu déglu. Euh, waaw je je li ma li ma ci li ma ci euh, def comme jàngat. Mm-hmm. yaakaar naa ni lu ci ëpp waxoon nañ ko. gis nga euh, heureusement ba président de la république démb accordé na benn temps bu vraiment remarquable. Mm-hmm. accordé na aussi benn considération ci li nga xam ni moom mooy jàng beeg njàngale bi euh, ma koy wax rek Amina wax na ko sànq démb wax naa ko ba dafa am secteur yoo xam ne eh, soxna jaara dafa dafa yor réew dafay taxaw a réew mm-hmm. muy li ci mel ni jàng jàngale muy li ci mel ni santé donc su day état nekk na di dox ci dynamique gu revaloriser yooyu duñu def lu dul encourager ko du ñu def aussi lu dul gën a am yaakaar gën a am espoir Euh, am na nag euh, vraiment yi nga xam ni euh, nekk na ci ay atu ñu koy saluer et que di ci encourager ñenn ci jàngalekat yi mais aussi am na yoo xam ne wax dëgg yàlla day sooxe ci wàlluk jàng beeg jàngale bi et je pense que le président de la République avancé na ci dynamique boobu dans le but de revaloriser et de refonder l'école sénégalaise parce que aussi euh, comme ni ñu koy wax école bi moom mooy former école bi aussi benn côté moom mooy éduquer démb maa ngi ci éducation bi nga xam ni tey jii nii certes famille bi war na ko euh, jox xale bi mais aussi école bi war na ko jox xale bi nga xam ne day am benn complémentarité bu dox entre famille bi ak école bi lépp nekk des structures sociales euh, et suñu ñëwaatee éducation boobu dafa am Euh, wax dëgg yàlla euh, solo ci doomu aadama bu ñu ñëwaatee ci benn xalaat euh, xalaatkat Emmanuel Kant mu ngi doon wax par l'éducation l'homme transformation son animalité en humanité mm-hmm. maanaam ci éducation nit dañu dana ci nite et que nit bu nekk nag dañuy xaar ci yow nga nite parce que dañ naan nit bu nitewul du nit donc donc éducation day nekk li nga xam ne vraiment dafa dafa am solo ci point yi nga xam ne le président de la République évoqué na ko man dama ciy ñëwaat rek jël ci li nga xam ni mooy euh, vraiment euh, programme bi ak euh, le fait que ñu dugal euh, yenn langues yi euh, ci euh, enseignement bi mooy les langues nationales je pense que waxoon nañ ko fi premier ministre évoqué woon na ko fi ay temps jamono yi passé suñu ñëwaatee eh, di ko évoqué waat day nekk lu am solo mm-hmm. et que gis nga soxna jaara programme bi benn jour wax nañ ko fi soose ak man ñu avancé si aussi programme bi am na yu ci bëri yoo xam ne ñun ñu koy jàngal mais amul sens mm-hmm. aujourd'hui on est dans un monde euh, dans monde scientifique Euh, su ma nee dans un monde scientifique mooy monde boo xam ne ci logique bi muy doxee science moo koy doxal mm-hmm. ah ñu ni yeneen matières yi amul njëriñ de mais yeneen matières yi encore une fois seen solo science daf ko xaw a nëbb pourquoi science daf koo xaw a nëbb parce que tey jii nii ñu ngi dem ci ay euh, phénomène yoo xam ne science moo koy doxal ñu ngi dem ci ay stratégie yoo xam ne science moo koy doxal tey jii nii dem nañ ba naan est-ce que ñi nga xam ni ñu ngi ñu ngi doon liggéeyee ak loxo est-ce que ñoom sax danañ amati emploi ndax science. mooy que avec le développement du machinisme aujourd'hui nit ñi li ñuy fonctionner ak seen loxo yu bareetul léegi dañuy defal ay robot robo yooyu ñoom ñooy doxal ainsi de moo tax ñu ne est-ce que donc ci jàngale bi waruñoo def de telle sorte que science ëpp ci doole science ëpp ci doole yenn matières yoo xam ne waxuñu soxlawuñ ko mais am na contenu yoo xam ne ñu ngi ci matières yooyu jaara est-ce que contenu yu am solo la kenn waxul français bi waruñu koo jàngale kenn waxul philosophie bi waruñu koo jàngale mais ci français bi ñun tey jii nii euh, ban solo la ñu Euh, les euh, les les les fleurs du mal de de Baudelaire amal. Mm-hmm. Euh, xam nga Victor Hugo les contemplations voilà fan la ñu mën a mën a jëmale réellement contenu bi d'accord mais après suñ ko jàngee lan la. est-ce que amul leneen lu ñu war a mën a jàng ci français bi je pense que que tey bu dem ba classe de terminale ngay gis xale bi di am problème pour exprimer wu en français là y a problème donc base bi la ñuy raté est-ce que base boobu noonu waruñu ko refonder nga ñëwaat ci yenn bi tey jii nii fan la mën a jëmale ñenn ñi tey jii comme Amina nu mu ko waxee nee na parfois moom bu doon def mat day stressé mais am na tey ji ni euh, Amina mat rek la mën a gis am na tey jii ni xale yoo xam ne bu ñu waree def anglais dañuy stressé mm-hmm. parce que tey jii nan la ñuy war a mën a def interaction ba interaction entre professeur anglais bi ak élève bi ba nga xam ne élève bi dina sentir boppam ci matière bi ça aussi y problème loolu aussi day am tey jii nii da ngay war a jàng gis benn élève ak benn professeur de philosophie interaction bi war a amul parce que tey jii nii boo jëlee philosophie bon <laughs> ñenn ñi dañuy jël philosophie def ko comme benn matière boo xam ne c'est extraordinaire matière boo xam ne comme si moom rek moo existé nga ñëw di wax benn langage boo xam ne langage bu kawe la kawe kawe kawe xale bi après day am problème pour dégg pourquoi parce que xale bi dafa am problème français sax yow nga jël affaire bi francisiser ko ba nga xam ni moom yéen moom tolloo leen niveau ba pare matière bi nga koy jàngal mu nekk matière boo xam ne ngaa jël niveau bi aj ko. waaw noonu lay demee après après voilà yaa yaa problème bu boobaa xale bi yow du la dégg. Mm-hmm. fii ba suba du la dégg. Mm-hmm. nga dem nga xool notu xale yi ci matière boobu noonu benn classe cinquante élèves soo moytul quinze élèves ñoo ci am moins là problème léegi nag yooyu noonu waxuñu. ba tey je pèse bien mon mot waxuñu yenn matière nañ ko supprimer mais nañ ko xoolaat contenu programme bi ngay jël enn leçon nga war koo jàng d'accord am na yoo ci soxla mais am na yoo xam ne vraiment man yaakaar naa ni soxla woo ko et ci loolu tamit nga gis ni euh, tey jii wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo koy exercer toujours question étique bi ak déontologie bi day ñëw ak passion bi ñi koy exercer nan lañ ko war a exercer ak ci yan anam lañ ko war a exercer dafay am loo xam ne d'accord y a la compétence y a professionnalisme mais dafay am loo xam ne aussi il faut nga boole ko ci pour affaire yi kat mën a jaar yoon bi euh, soxna jaara lu luñ ci wax du doy et que encore une fois yaakaar nañ ne état bi dina indiwaat ay euh, coppite ak jooyanti euh, mbir yi ba nga xam ne vraiment dina mën a jëm kanam ba nga xam ne vraiment ah suñu système éducatif bi kat dina nekk un système éducatif meilleur